ñoo leen woon tey fii pour waxtaan ak yéen ak xamal xamal leen euh, ak population bi suñu njàqare ci la xew fan yi surtout rek après tabaski yaakaar naa le le 2 août la woon mooy comme ni ñu ko xamee marché Sandaga lakk lakkoon yàgg na ko euh, boobu ba léegi ñu nekk ci euh, defar ko nu ñu def ba defar ko ah, ñoom ñu waxoon ne pour ñu defar ko il faut ñu dindi li wër marché bi maanaam li wër marché bi il faut ñu dindi ko euh, doo koy mën a defar xel itam mën a nangu loolu ñu ne ah waaw loolu xëy na xel mën na ko nangu ah léegi nag malheureusement bi ñu koy dindi ñu jégg tali bi maanaam boole ci côté droite bi quoi boo xam ne ni ñun jàpp nañ ni ak daje yi ñu dajeek ñoom yëpp laaj nañ leen ñu ne ñoom li ñu soxla rek mooy le concerné maanaam li ñu soxla li soxla rek mooy li nga xam ne nii euh, pour ñu liggéey il faut ñu dindi Eh, ñu boole ci loolu quoi loolu moom métti nañu naqari nañu ba pare ñu dégg ministère bi ci boppam ñu koy laaj di ko interview ci télé yi ak rajo yi mu ne loolu bokkut ci woon waaye moom moo ko ci boole quoi léegi nag loolu moo ñu tiital maam bu ñu demee ci réew moo xam ne nii ab ministère mën na toog rek jël décision bu mel ni lu mat 150 cantines yoo xam ni seeni borom seeni bàyyi foofu la ñu nekkoon bañ fekk leen maam seeni njaboot ak seeni kër ci lañ ko yor nga xëy rek toxal leen. Euh, dindi seen i kàndil doxal leen foo xam ne nii euh, yàlla xam ne mën nañ fa am ay fan duñ soxee maam duñ jaay quoi loolu daal loolu mënuñ ko mënuñ ko nangu loolu moom euh, dootuñ ko nangu ci ñu ngi ñu ngi yëgal ñu ngi woow monsieur le président Macky Sall di ko xamal ne ko sécurité réew mi moom moo ko yor quoi ah léegi ñun ci réew mi lañ bokk itam cantine yi du rek dañoo xëy ñëw fi cantine yi dañu ko joxoon mu déparé ci benn action gouverneur bi ñoo wax Thierno Birahim Ndaw moo moo joxoon cantine yi autorisé ko pour sénégalais yi boobu ay naar rek wala ay tubaab rek ñoo nekkoon ci cantine ci ci magasin yi ñu autorisé leen ñu ñu lal seen taabal ci mbedd mi pour am lu ñu yóbbu seen kër yi ko ci boobu la dakaar gën a set boobu la boobu la Dakar gën a gën a gën am autorité ko mais amoon nañu reste boobu ci nit ñi ko du njëkk ba tey nag 50 ans après nit ñu nekk fii di fay seen i juute di fay seen lu nekk ñu def ko fi. benn nit xëy rek dindi ko ci turu eh, rek wax dara lu mooy rek eh, lii bokk ci yoon waaye maa ko ci boole ko loolu moom du lu ñu nangooti ca eh, dañ jël suñuy motuwaay yëpp ànd ceeg bureau national ànd ceeg bureau département ànd ceeg bureau national jël jël suñuy motuwaay yëpp bu bu soxlaa ñu jël ay avocats yi IC pour ñu expliquer ñu maam lu xew lan la quoi daal moom euh, il faut mu wóor ne il faut mu leer ne façon yi mel ni moom dootuñ ko nangu ko mm. lu mu tuuti tuuti rek mën na 150 cantine te comme ni ma koy waxee xëy na jël nañ seen marchandise ndax dañ leen a menacé cinq jours ba la ñuy julli euh, ñu bañ ne du joxe seen tur ñooy leen du ngeen joxut seen tur ñu ñu bind inconnu ñu tiit joxe seen tur génne nañ seen i bagage mais li ma wax du du bagage yi ci boppam moom rek ci Sandaga maam bagage yi amul valeur mën nga am bagage yoo xam ne 2 millions lay lay nekk mais xottu kànd bi ci boppam yow boo ko doon jaay day nekk ay 12 millions et 11 millions waaw ak nature ki xëy na euh, en tout cas noonu lay demee fii ci ñun quoi ci marché bi mooy tey boo soxloon xottu cantine Sandaga euh, mënoo ko am mukk lu manqué 10 millions jëm kaw quoi donc loolu bu xëyee